Euh, médecin chef am daal di koy xam des na ko di faram fàcce si nu mu gën a yaatu neen daal di sëy itam du daal di jëm si li nga xam nekk moo di Cour suprême moom ne daal di euh, débouté li ki nga xam nekk mu di le juge Abdoulaye Ndiaye jàpp moom à la dernière minute mu di Ousmane Sonko di ko daal di gànkal bëgg-bëgg teefam ñeex daal di li nga xam nekk mu di coppi ki nga xam nekk mu di le juge Abdoulaye Ndiaye mbokk euh, ponk yaa ngoog dama si ànd ki nga xam nekk mu di justement Mamadou Niang ñaan yu bu baax a di la ziar bàyyi nga daal di nuyu téléspectateurs yi. salaamaaleykum téléspectateurs yi maa ngi leen di leen sant bu baax a baax di kontaan bu baax a wax ci teewaay bi nii di leen jaajëf. alors mbokk yi ponk yi leen fas yéene daal di yaatal ni incha allah soo leen daal di teewloo.

ma ni kon information bu ni mel El malik ndjay mo ñu ko daal xamal mom El malik sa jàpp ni tam bracelet électronique bi nga xamni tam takalon takkaloon nañ ko ko mujj nañ ko daal dina xamne ke modi dinni Ousmane Sonko mujj nañ ko daal yóbbu fa nga xamni tam modi moo di ki nga xamne ke modi Cap Manuel de na ko daal fatié faram xol bobu dina xamne ke modi changement lan moko ko waral alors li nga xamne ke modi bataxal bi nga xamni ni itam ma ni ko ñoom ñoo ko suñu kilifa yi ñi daal wax ni ke ni Ousmane Sonko yóbbu nañ ko fa nga xamni tam itam Cap Manuel dañ ni ko dal li nga xamne nekk modi yatalal yaatalal si nu mu gën a donc ki nga xamne que modi le leader bu Pastef jamono ci nak mujj nañ ko dal yóbbu fa nga xam ni itam mooy zaanuka Cap Manuel ginaaw rek ba li nga xamne nekk modi di Sébikotane bi nekkoon li nga xamne nekk modi di entre autres li nga xamni tam amon na fa bokkoon na ñu dal di li nga xamne nekk modi partager li nga xamne nekk modi certificat médical am waaye itam fa nga xam ni que mooy zaanuka Ziguinchor waaye fa nga xam ni itam mooy zaanuka Sébikotane aussi coow li nga xamni tam itam na ci administration pénitentiaire ak aussi li nga que chef ya ak fuite ba la daal di est ce que nek lolo waral daal ko yobbu euh, xamni itam Cap Manuel laaj na laaj tontu na euh, euh, laaj si wu mel exactement alors ñaan dañuy daal di ñew ci commentaire bi. Ousmane Sonko yobbu fa itam Cap Manuel sax ñoo ñew si que réaction bu son médecin chef.

temps passé yi donc euh, mu doon fuite euh, ci document euh, médical am hmm. ñi daal di gis ni am na ci euh, ñaari euh, ñaari officier yu mag yi nga xamantene dig na dig tegoon na leen loxo ci problème fuite boobu noonu hmm. donc du coup je pense que dañoo gis ni léegi fi mu ne nga xamantene ne mooy nu mu tudd sax hmm. prison bu Sébikotane voilà peut-être que nguur gi moom xelal xelam moo moo si dal moo si dalatul donc moo waral transfert yi waaye peut-être li xaw a jaaxal nit ñi tuuti mooy nan lañ mën mën a transféré Ousmane Sonko te médecin am yëgu ko. Mm. loolu moom man loolu daf may jaaxal. Mm. parce que tey euh, patient bu xasee ba teg tànk ci biir hôpital bañ ñu hospitalisé ko jàpp nañ ni lépp li nga xamante ne mouvement am la ou sax génnam ak dikkam. loolu mu ngi dépendre ci avis médecin bi mm. maanaam bu ñu bu hospitalisé la euh avis médecin moo la notification médecin moo la war a mën ci biir hôpital donc nak buñ démé bu diko fa génné té médecin bi nga xamante mom moom koy suivre euh, mom nee na yëgut loolu mm. je pense que loolu noonu tey xel bu mm. baaxa baax médecin bu koy suivre li nga xamné que modi euh, médecin chef am nee na lu nu mel donc jappé ni tam ci euh, bénn ko communiquer la ko waa Pastef daal di xamle que ni li nga xamné que modi Ousmane Sonko

jëm si yooyu de li nga xam ne moo di élection ñoom itam jàpp ne ni anam bi na xam ne itam noonu ko daal tege loxo di leen lu dul euh, salfaañe ak ak femme. Euh, alors donc euh, lañ jàpp mooy li nga xam ne moo Ousmane Sonko reste un candidat favori à l'élection présidentielle 2024 arbitrairement détenu et privé de ses droits par ses adversaires politiques ñu daal di jàpp ni ñoom na nga ko téewee et que doon daal di salfaañe ak ak yelleefam samay kàddu nag waa Pastef ñoo ko daal di Pikine wala kon waa ex Pastef jàppale ni itam ñoom ñu daal di jàpp ni fu toll nii euh, constat bi dafa daal di inédit maanaam euh, taxaw seetlu bi nag dafa daal di doy waar lool jëmale si ki nga xam nekk mu di Ousmane Sonko ndaxte euh, fa nga xam ni itam mooy zaanu si dëkkal googu lañ ko ñu kon daal di barricade yóbbu ko fa nga xam ni itam mooy zaanu Sébikotane jëlee ko fo yóbbu ko zaanu li nga xam nekk moo di pavillon spécial tey fa nga xam ni itam mooy zaanu Cap Manuel. alors tey jii nag euh, ki nga xam que euh, euh, le président ak secrétaire général bu ki nga xam que di pastif di ki nga xam que modi Bassirou Diomaye fay Bassirou nag moom jamono ji Euh, ak yeneen li na xam ne que moo di deux candidats si présidentielle atoup deux mille vingt quatre ñoom itam ñu daal di jàpp ne da leen daal di euh, li nga xam ne que moo di séquestré maanaam euh, jamono ji nag waa Pastef jàpp ne ni tam nguur gi tëj neen fépp maanaam tëj neen ba tëj ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye bi nga xam ne itam peut être candidat candidature am leeroon na si présidentielle vingt quatre man ni kon nag ñoom jàpp ne ni tey jii nag yem ak li nga xam ne que di dix sept novembre deux mille a trois nekk bés bi nga xam ne itam démocratie du ko daal di Fatih benn parce que bés boobu ñu fa leen daal taxawal euh, procès li nga xam nekk modi. AGE ak les avocats de l'État du Sénégal ak li nga xam nekk les avocats d'Ousmane Sonko jëm ci euh, radiation bi nga xamni tam amaloon nañ ko ci diwaanu ko ci euh, Ousmane Sonko mu daal ko fa nga xamni tam itam mooy zaanu ko Ziguinchor xam naa ne des na des mu gëna a inshallah fa ko wax ak li nga xam Ali Siré na nga xam ni la daal di débouté à la dernière minute ay avocats yu Ousmane Sonko alors dañuy daal di wëyel wax ba euh, parce que euh, ñu ne euh, transfert bi la ko sabab sànq wax à un moment donné nous neen ay fuite de documents de part et d'autre tantôt ñu ne li nga xamné que modi certificat médical Ousmane Sonko leen da di fuité tantôt ñu ne aujourd'hui li nga xamné que modi Sonko condition yu nekkone dañ futé futé avocat am di si jot ñoom maître google di ko dugal euh, si nga xamné que modi réseau yi et tant d'autres et tant d'autres alors tay à quoi il cherche euh, concrètement euh, su néwé tay su nga yóbbee si Cap Manuel japp né mo ëpp sécurité est-ce que nouvelle yi n'a xam ni tam doon ko amé Ousmane Sonko dinañ ko wóy du ko amani. waaw je pense que Ousmane Sonko japp nga xamante japp nañ ko. Hmm. peut-être que nouvelle yi ñu mën am. canaux yi du mën a bëri. benn ci avocat yi nga xamante ne am nañ droit dem seeti ko. Hmm. ak ñenn ñenn yi nga xamante ne administration pénitentiaire may na leen ñu mën a ñu mën a dem seeti ko gis hmm. ko. Hmm. ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy administration pénitentiaire ci seen bopp. donc je pense que boo jëlee éléments yooyu noonu yëpp euh, nguur gi dafa nekk ci benn logique parce que aussi euh, dañuy wax rek mais prison moom melul ni kër. donc ak foo munti mun munti nekk rek. Euh, quel que soit ci cellule bu ñu la dugal rek fekk yaa ngi prison euh, nu mu tudd sax mënoo am condition yi nga xamante ne hmm. euh, moom ngay am ci sa kër hmm. Hmm. donc nag mu doon loo xamante ni je pense que bu état demee ba nar procédé ci benn transfert dafa dafa am parce que nguur nguur du wax lépp. donc certainement du wax lépp cest à maanaam tey jii loo xam ni itam poussé na ko pour ñu daal di war a mën a ay haut gradé ñoom lañ teg loxo. ci fuite document boobu noonu. donc buñ démé ba changer loko aussi euh fim nek je pense que aussi ñom peut-être que daño am accès ci yenen information nga xamante ñi ñu amuñ ko ci bon euh <laughs> Fallou fallu yaangi top ka donc bo gisee tamit. euh mën nañ am mën nañ ci am c'est-à-dire sûrement donc euh, euh rido may gala kon mën nga waxé waxee le fait que information di wacc non ba mën na bañ a doon rido mbay gis nga mm. eh, maanaam phénomène Sonko moo garaaw. Sonko boo xoolee fépp fu mu laal rek dina am ñoo xamante ni. Eh, mm. dañuy partager nu mu tudd sax walla wala mm. causam te boo xoolee ñoo ñu noonu du leen jig après. juge Sabass si ngi ne le. mu ngi ci ay problème eh, nu mu tudd sax juge bi jugé woon affaire Adji Sarr bi gars yi mayuñ ko jàmm. nu mu tudd sax même ñaari officier il y a une disparition disparition euh, deux officiers de la gendarmerie. à y ay temps xam y a euh, le cas de mm, mm, Fulbert voilà euh, Fulbert donc il y a ni y a ni am il y a une Il ci ci ci Il tudd sax ci y a gars peut-être que dañ doon lëkkaloo ak Ousmane Sonko. Mm. wala dañ doon déggante ak Ousmane Sonko. wala mm. dafa am information yu ñu doon jox Ousmane Sonko boo xoolee nguur gi dafa jël ñooñu ñëpp réduire leen au silence. te jii nii ñu ne la ci affaire bi mu nekkee si bi kotaan dossier bi bu mu fuitee ba léegi jël nañ ñaari. Euh, sous-officier de la euh, mm. de la gendarmerie ñi teg leen loxo. Euh, donc loolu noonu doon li nga xamante ne c'est inquiétant ce qui veut dire dafa am ay enquête interne. enquête interne te am yu mu révélé am loo xamante ne journal. journalistes yi mm. donc si on aussi raison parce que tu ñu ngi destin passe chef dina qui euh, vendredi bini. parce que quelques juristes qui doon interprété, mm. ne ñu euh, vendredi pour confirmer la euh, radiation Ousmane Sonko ce qui veut dire que du radiation temporaire mais radiation définitive. illimité.

amona ay jamono lu fi musoon am donc euh, inhabituellement euh, gars yi tegoon fi loxo Sonko. Hmm. ñu koy koy fàttaliku. biñ ko tejé loxo amna na ko yóbbu woon te fi ko yóbbu woon foofu noonu c' pas l'endroit approprié mais c'est pour des raisons sécuritaires lañ ko fa yobé parce que dafa amoon <laughs> non da parce que teg nañ ko fi loxo en 2021 mille vingt et un. voilà tegal nañ ko fi loxo fa xamni xam moy zane kungel zànn Koungheul euh, bii paase si ban ngay wax ñaar yoy non non bi ni Dakar fi la woon. Dakar Dakar fii la woon c'est-à-dire euh, euh, c'était en 2021 Euh wala euh, bu nga jappé won ci corniche bi buñ ko jappé won ci